أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla mi dogal ñu teew fi tey di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim di nuyu suñu sëriñ alhaaji sëriñ Jibril Combaan di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko suñu kanam yàlla dëgëral ko yàlla may ko wér may ko njabootam di nuyu famille Thiombane yëpp njabootam ko commencé sama papa Mouhamed Thiombane sama papa Góor Thiombane sama papa Cheikh Thiombane sama papa Mansour Thiombane sama papa Mam. Alay Abdou Aziz Thiombane sama papa Mame Mor Thiombane moom mi nga xam ne mooy caatu Serigne Alpha di nuyu samay bàjjen yëpp njabootu Serigne Alpha yëpp di leen nuyu di nuyu taalibe yi lañuy ñuy wax du bëri mooy cosaanu Serigne Alpha wala benn ñu wax cosaanu Serigne Jibri mi nga xam ne moo toog ci xalifa bi tey Serigne Jibri mooy ñetteelu doomu Serigne Alpha Thiombane ci góor gi yàlla dogal na moo yoroon daara ji doon jàngal alquran daan jël daara yi di leen yóbbu Dakar ca Fass mu leen di jàngal ginnaaw bu mu ñibbisee muy jàngale di jàngale ba mu bàyyi daara ji def ko ci ay teg ko ci loxoy rakkam rakkam yore daara ñoom sëñ Cheikh ak sëriñ Mouhamadou Mansour mu ñëw itam toog ci baayam mu topp ginnaaw rakkam yi ginnaaw baayam génne àddina magam sëriñ Malick Thiombane porte parole kër gi teg ko ci loxoom mu yore ko daanaka boo seetee porte parole bi ñeent fukki at ak lu teg juróom benn weer yor na ko ci dunduk Serigne Malick Thiombane bi Serigne Malick génnee àddina Serigne Mouhamadou Lamine Thiombane nekk ci xalifa Serigne Malick Thiombane ñaareelu atu Serigne Doudou Serigne Djibi yor porte-parole bi kon nekk na 42 ans yu teg ak ay fan Serigne Doudou kër bu mu génnee àddina la Serigne Cheikh waxtaan ak sama papa Serigne Djibi Thiombane mu jër porte-parole bi mu jox ko Mouhamadou Mansour Thiombane xam naa ni yaram bu jegati ak ngant moo tax yëg suwul ci gàmm gi jotaay bi nag. Serigne Malick Serigne Alfa radiyallahu taala anhu daan na woo taalibe yi ñu ci jotaay bii muy wut mat ak ay ginaar ak ay dugub fii lañ daan déparé dem siyaar ci Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu loolu ci dundug Serigne Alfa la woon kon bërëb bi dañ ba daan toog di fi di fi ñaan yàlla ba yàlla dogal li Serigne Jibri bi mu nekk fi di jàngale di joxe di def daawa di jaamu yàlla mook ay jabotam ak muqaddam yi ñu mel ni sama papa Ibra alaaj Ibrahima Thiaya Ibrahima alaaj Abdou Dieng ak ñoom ak sama papa Ibrahima ñu gën ko xam Ibrahima Mbett ci waxi ni séeréer ak mboolem mag ñi loolu yëpp muy dox ñu koy dundul ci xadara bi ba tey ba tey yàlla dogal Serigne Jibril Combaan nekk ci xalifa baayam yàlla ko jig yàlla na yokku lii nga xam ne moom la tabdiloon ci ginnaaw Serigne Malick Serigne Malick tabdiloon ko mooy jumaa ji sëñ Duuru ñëw sama papa Mouhamad Lamine beesal loolu Serigne Jibi yor ko yàlla na yàlla may ko mu fekkee ba mottali néegu jumaa ji ak tabax bi fii nag mooy croisement Makka Xay ñu gën ko am croisement Palo muy dëkk boo xam ne dëkku leer la muy dëkku islaam dëkk bii àll la bu lëndëm la woon Serigne Jibril bi baayam demee mu yore lépp gérer ko di defar di woote woo mboolem xeetu séeréel woo mboolem xeetu xalpulaar woo mboolem xeetu tukulóor woo mboolem xeetu joola woo bokk jullit yëpp tey bisam bi jot kon ñun dañ saa war a jàpp ci ñaan war caa jàpp ay sikriyaat war caa jàpp ci jàng alquran loolu lañ doon dundal moo ñu tax a ñëw fii dëkk bii nekk na place boo xam ne lu ko waay ñaan yàlla nangul la ko Serigne Alpha juddam ñëpp xam nañ ko xëyul fekk baay defar xëyul fekk fekk maam defar xëyul fekk benn mbokk defar dafa ñëw rek yàlla jégal ko lim koy jégleel muy woote di le ba tey lépp li am am kon ñu gërëm xalifa bi di gërëm waa programme ñi yor programme yen ñi nga xam ne yéen ñëw doon jël si gàmmu gi yàlla yàlla defal leen jàmm di ñaan mboolem jullit yi ñu xam lan mooy liggéeyu Serigne Alpha bu ñuy wax jihaad ci wàllu islam Serigne Alpha la ñu mën a joxoñ ci Sénégal boo déggee islam diine ter jolak islam chrétien Serigne Alpha la ñu war mën a joxoñ parce que ay bëggum yëpp ay chrétien la woon ay chrétien la ay ay baayam ay chrétien la woon ay yaayam ay chrétien la ñu woon mu ñëw di ànd ak ñoom ci masla ak muñlante ba mu taxawal diina ji kon kooku am nañ ko jukkal pour war koo ñaanal yàlla maa ngi gërëm sama doom doom bàyyi ki nga xam ne moo ci mag tey mooy Serigne Mouhamadou Lamine Thiombane ka ca ginnaaw yàlla man a ginnaaw man Pape Alpha mbooleem rakkam ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla dafa leen jàmm dafa leen wér dafa leen xéwal lépp lu ñuy dawal ci kër bi yàlla yàlla barkeel ko. waaw mooy lii maam Ous alaaji maam Ousmane wax sànq di doomu sëñ Abdou Aziz wax na fi xam-xam yoo xam na ni loolu rek moo jar roy addina lu dul jaamu yàlla perte addina lu dul jàng alxuraan perte addina. amul lenn lu muy attewoo fii jurit amul lenn lu muy attoo ci islam dul alquran bu bëggee dem na attewoo ci alquran parce que yàlla am na ay aay yu mu cité ci biir alquran afa man lam yaxkum bi ma anzala laa fa ulaay kumul man yaxkum bi ma anzala laa fa kaasibun yooyu yëpp ay aay yoo xam ne yàlla da koo wàccee